doon rafetlu jataay bi nga xamante ne moo ñu fi dajale tey ñun ak euh, équipe euh, unité de coordination bu projet PROCACEF te monsieur Dia jiite ko di rafetlu jataay bi nga xamante ne li ko waral mooy euh, matériel bi nga xamante ne PROCACEF jënd na ko Euh, pour jàppale direction de l'environnement et des établissements classés ci liggéey bi nga xamante ne war na ko def damay fàttali ne Procasef projet boo xamante ne la laata ñu koy tàmbale dañoo defoon maanaam benn étude bu ñuy woowe étude d'impact environnemental boo xam ne code de l'environnement moo ko exiger étude boobu nag bu ko defee ba noppi ki nga xamante ne mooy ministre de l'environnement day joxe lu ñuy wax certificat de conformité maanaam document boo xamante ne day wane ne projet bi matal na li nga xamante ne moom la ko réglementation bi laaj alors bu ñu ko defee ba pare dañ ko jox lu ñuy wooyee certificat de conformité environnementale te bi certificat boobu dafa ni PROCASEF dafa war liggéey ak direction de l'environnement pour seen plan de gestion environnementale et sociale ñu mën koo doxal donc ci loolu signé woon nañ benn convention en 2022 bi ñu signé convention bi ba pare nag ci la Procasef gis ne jot na fi mu nekk matériel bi mu mettre ko à la disposition de la DEC pour que ñu mën a jublu ci liggéey bi muy matériel bu am solo ndaxte boo xoolee euh, quinze ordinateurs portables la euh, quinze imprimantes multifonction ak euh, benn photocopieuse multifonction boo xamante ni dina permettre tey ñu équiper suñu service centraux yi mais dina permetre aussi ñu équiper suñu de déconcentrés yi maanaam ñi nga xamante ne ñoo ñu toggal ci région yi fi nga xam ne fa la projet bi euh, di euh, doxalee maanaam ay activités am kon ñuy remercier encore une fois projet bi di le rek ne euh, direction de l'environnement xas na dogg pour ànd ak unité de coordination bi ñu doxante loxo jàppale wante ba plan de gestion bi nga de environnemental bi nga xamante ni ministre de l'environnement xaatim na ko ñu mën ko doxal ba projet bi nekk ci projet yi nga xamante ne ëllëg si biir dañ leen di citer ci projet yi nga xam ni wax dëgg yàlla ci wàllu environnement dox nañ ci ay jéego yu am solo. tey jii dama ñëw fii ci direction bu environnement nekk ci ministère bu environnement pour jëm matériel boo xam ni projet bi du ko jëndal direction bi pour gunge ko ci liggéeyam ñu jébbal ko directeur bi. matériel boobu kat toll na ci fukki ordinateur ak juróom fukki imprimante ak juróom. ak benn photocopieuse bu ñuy wax multifonctionnel maanaam bu mën a def lu bëri ci bi ko xaymaa nag ñu ngi ko jëndee trente millions francs CFA. loolu li tax ñu def ko parce que dañoo xaatim suñu diggante ak DEC benn këyit boo xam ni ñoom am na lu ñu war a dimbaloo dimbalee ci wàllu environnement ñun aussi am na lu ñu leen war a dimbaloo dimbalee ci jox leen jàppale leen ci matériel bi ñuy liggéeyee sunu bailleur comme état du Sénégal question environnement daf leen a ñoral daf leen a soxal lool parce que projet foncier mënu koo exécuter ci terrain bi saa nga jël en compte euh, dimension environnement bi loo tax dinañ continuer ak ñoom liggéey bu baax te déjà ñu ngi remercier bu baax directeur Dramé parce que daf ñoo jàppale jàppale nañu bi mu gisee ñun kat ni respecté nañ li ñu waroon ci wàllu environnement ba mu jébbal ñu certificat conformité donc li ñuy wax mooy euh, ñun ñëpp ñoo bokk état bi ñoo bokk communes yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey ak également population bi loo tax collaboration la boo xam ni macha allah bokk na suñu collaboration yi ñu am ak partenaires yi bu ñu gën a satisfait bu ñu gën a kontaan te loolu incha allah dinañ ko continuer di ko doxal ci yeneen i jéego.